Diop na nga def Diop bari kàll Diop. Biram ah ah. ah, ah lan mooy seen. fii doy na. Ah, doy na ma doy na ma. Biram lenn rek laa bëgg xam ndax yabeel la lan la. lu tuuti laa lay doy nag xaalis bi la buur joxoon def ko ci enveloppe ak kayitu kër ga ne la nga indil ma ko ma delloo la ko xaalis boobu laa bëgg a xam fan la nekk biram